Pape Thiam Boy Walo écurie Bokar Sow Boy Walo moo nekk ci suñu ginnaaw ki nga xamante ne mooy Pape Thiam écurie Papa Kan ndeysaan mbokk yi arbitre bi sëfle na may ma bokk mbokk yi arbitre bi sifflé na huitième combat de la soirée diggante Boy Walo écurie xale bi nga xamante ne mooy Pape Thiam écurie Pape Kane leen fàttali ni nag Boy Walo moo nu woon ginnaaw Pape Thiam la mu jàkkaar lool mbokk attention Boy Waalo attention Boy Waalo attention Pape Thiam ñi ngi xeex jël na ko Pape Thiam jël na ko Pape Thiam jël na ko Boy Waalo takk na ko ndeysaan Boy Waalo Pape Thiam oh attention songale attention la dara xewul la illa subhanama li ñaka songale ko songale mu cëppeelu lamb na ko de. waaw dafa songale mu. est-ce que da nga xam nga ni dana def ni moo ko ëpp dana xam ni moo ko ëpp da ko bëgg jóg ba ci kaw. booy waalo daa yaakaar ne dafay ñëw néewal ko doole mais Pape Thiam loolu la oh, oh. a toll walaay. Pape booy waalo. ndeysaan booy waalo. yéen fàttali. daa songale waat. Ah, dana ko tardé waat. Pape Thiam Pape Thiam Boy Walo Pape Thiam Boy Walo Boy Walo Pape Thiam léegi Pape Thiam mi ngi door ci suuf Pape Thiam mi ngi door ci jàpp daa baax waaw Boy Walo ndengeñ moo tax mënul def dara sax nekk nii li mu ko def wallaay ndeysaan des fois mu jéem a beneen beneen Boy Walo sikki jéem a amaat songale ba wala mu jéem leneen wallaay ndeysaan loolu lay jéem a naxanteeg moom moom euh, Pape Thiam si yow. ndeysaan. gis nga booy waalo gis nga. attention Pape Thiam góor attention booy waalo Pape Thiam. attention booy waalo attention Pape Thiam. léegi Pape Thiam a ngi dóor ci suuf. combat mbay Thiam a ngi dóor ci teg teg la. soo su ñàkk tag la dafay faral di gaaw. ku ci jëkk yaa koy moom de. loolu dëgg la Mbay. oh oh. ndeysaan. waaye Baye du nuyu Souleymane. Souleymane. boo nekk ci boo nekk ci technicien bi. nit ku baax la. ndeysaan jàmbaar la. ndeysaan. bi nga koy teg ci yoon. oh. xolam yaatu na. waaw waaw gis nga la ma lay wax. ni nga koy songale waaw loolu la bëggaat. oh. loolu la bëggaat. laa ilaaha illa combat bi métti na. ndeysaan. booy waalo. mi ngi riposte ndeysaan. combat bi da def lu mu ndax dafa jóge ci defet jógewaat ci defet kon tey moom booy waalo daanu waru ko arbitre bi àtte na leen laa moo dem ardo seeti na docteur booy waalo ardo noonu waaye ndeysaan Boy Walo Pape Thiam ñoom ñaar Boy Walo Boy Walo Pape Thiam ñoom ñaar ñi ngi xeex Boy Walo Pape Thiam jël na ko takk na ko attention caxabal bi oh Boy Walo Boy Walo Pape Thiam mi dafa mën a bëri xale bi da ko rek mu daw caxabal. sànq ba léegi boo xoolee li muy jéem a tardé nga xam ne bërekat la. ñu koy wala ñu ngi koy encouragé làmb noonu. wallaay ndeysaan. jàmbaar la def na li mu mën ndeysaan. jàmbaar la def na li mu war. làmb moo tëddee noonu. xeex na bëre na. loolu mooy làmb ndeysaan. waaw waaw.